Omar Sow conseil spécial du président Macky Sall fii si Yeumbeul Sud dafa gën a nag doubler mise bi ren jii si tabaski bii bokk na si lu tolloog ñaari junni njaboot ay imam waaye tamit ay njaboot yu nu ciblé yi nu jàpp ni seen nekkin métti na loolu population ba ba si responsable politique bi bàyyiwuñu kenn jàppale na leen si dañuy itteewoo ngir tabaski bi bokk na si enveloppe financière ay xar soble pomme de terre waaye tamit acte bi gën a kontaan loo doomu adama yi mooy haut-parleur yi mu jël jàppale ko lenn si ay daayira population bi ñoom ñoo ko séddee. initiative bi rafet na war dañu yàgg parce que ñoo enfant sondo ñoo doon ànd bu dee suba ngoon euh, kon bu yàlla defee mu am xalaat bi def ko duñ def loolu sant yàlla aussi tamit di ko ñaanal li nga xamante ne moom lay yootu muy mairie bi yal na ko yàlla yombalal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que nii rek la ndax yaayam sama daayira la bokk. kon bu tourné waatee defal li daayira def na waru garam du dëgg kon ñun lu ñuy def lu di ko ñaanal rek ak tamit gis nañ fi li mu fi joxee yëpp muy xaru tabaski yeeg soble yeeg et cetera et cetera ko defal tamit wax dëgg yàlla jar nañ ko ndax ay mag rek laa fi gis ñoo xamante ni tey seen loxo jotul seen ginnaaw kon bu jëndee ay xar jox ay mag jënd ay soble ak pomme de terre ci dem jox ay mag dañuy sant yàlla rek lii moom maa ngi koy soo gis fii conseil Oumar Sow dafa dénoncé nag parti bi nii muy doxee si ku nekk téye loxoom bañ nag jàppale askan wi te nag jàpp na ni lu nu am président Macky Sall ñoom kat gis na ni dañoo war a nag yëngu si solidarité yi askan wi ngir matérialiser vision wu njiitu réew mi ndaxte nag politique moom ak joxe ñoo ànd yi nag doonoon cri de Alex nous avons un problème dans notre parti nous avons un problème dans ce gouvernement nous avons un problème président il a beaucoup fait pour pour beaucoup de gens mais malheureusement man bu ma amee dama ko war a denc man ak sama njaboot te lu ñuy am du pour ak suñu njaboot moo tax koo ci gis ñii ñi ngi AVC ñii ñi ngi ñi ngi diabète ñii ñi ngi am hypertension ñi ngi am hyper lu nekk mais dañoo war a généreux dimbalante suñu biir jàppalante suñu biir parce que ñii amuñ ñu leen gën parce que ñii ñoo tax ñu falu ñii ñoo tax le président am beneen am tey son premier quinquennat 2024 ñii ñooy tax le président falu mais boo bëggee téye affaire bi lu ngay jot di ko lekk ak sa njaboot te dimbale woon nit ñi yaa ngi lor jaam yi yaa ngi yaa ngi yaa ngi tooñ yàlla. am maam du leen lu dul consolider parti bi fexe ba mu gën a yokk waaye nag mi ngi ko bëgg jaare sii lii di Osis Omar Sow yëmbal sud ak ay ñooñam doon jeunesse bi mag ñi ñëpp ñu àndandoo jàppale APR. boo xoolee tey Osis bi tey am nañ plus de cent jigéen te ñu leen di créé lu bees Osis Omar Sow yëmbal sud am nañ plus de cent yoo xamante ne tey ëpp nañ ko. ay jigéen lañ ils sont elles sont engagées elles sont déterminées elles sont derrière moi et je ne dis pas derrière moi parce que le moi il est positif mais ils sont elles sont derrière moi parce que je suis avec le président de la République nous sommes à la paire ces gens-là beaucoup beaucoup n'appartiennent à parti politique ils n'ont jamais milité dans aucun parti mais ils ont vu ce que nous faisons c'est pour ça ils ont décidé à la paire donc il faut que ñuy changer tuuti naw ñi pour mën a bëgg Macky Sall. lii nag tax na mu gën a réitérer candidature am si élection locale yi ñu jëm di 2024. Omar Sow candidat la te dañoo gëm na ñun ay ndaw lañu àndal te dañoo gëm na ñun ay jigéen la àndal parce que boo xoolee tey Alex Alex pendant ces deux ans la on a cravaché pour le faire bu nekkoon affaire mairie de Yeumbeul Sud la dañuy def ni ñeneen ñi làqatu ci ay ginnaaw kilifa dem làqatu ci ay ginnaaw ministre ministre bi génnee ñi door a joxe mais man làqatuma ci ginnaaw kenn ci ginnaaw yàlla laay làqatu ci ginnaaw le président de la république laa làqatu ci ginnaaw le parti APR laa làqatu. moom Oumar Sow gis na ni kat kenn moo ko itteel muy président Macky benn patron la am si politique muy njiitu réew mi képp koo xamante nekk nga fii da ñëw ngeen ànd ngeen doon responsable liggéey pour l'intérêt du parti waaye nag muy ministre ak ku mën a doon nekkul sa ginnaaw yaag moom na doon alerte. parce que da nga gis dafa am ñuy jënd. dafa am ñoo xam ne dañoo yaakaar dañoo mën a jënd APR parce que Alex man je suis dans la commune dañoo ñi bëri ñu ngi ne bokkuma APR mais Alex man bu ñu ma génnee ci APR APR jeex na depuis 2009 ba tey ba bi jaaw nañ donc parce que lan nee nañu dañoo war a dem ci ginnaaw benn kilifa mais kilifa googu fu mu nekk. war a wax wala wala ngay. non non man man ànduma ak topp ma ginnaaw Amadou Hott. monsieur le ministre da ngay wax da na war de. ginnaaw Macky Sall la àndal. Macky Sall moo fal Amadou Hott il est nommé par un décret kon bu ñu dañuy toog bàyyi politique APR day dee APR existé avant Amadou Hott avant sa nomination de ministre et continue à exister il ne sera plus ministre après ça après donc nous allons nous ranger derrière lui le jour que le président va l'enlever nous allons euh, arrêter notre carrière politique moi je dis non notre parti APR n'est pas à notre parti APR est un legs fort dont nous les jeunes nous allons le, le, le, le prendre moom Omar Sow am na ay perspectives bokk na si gën a def ay xeetu financement waaye pour le moment da ko nag téye ndax bëggul kat ñu perati bile idée yi. Euh, ñi ngi xaar ci beneen phase mooy bu ñu korité euh, tabaski ba pare incha dañuy song gën a songaat terrain bi keroog gis na finance nañ fi 2 millions femmes yi ak bokk financement individuel calebas yi dañuy créer beneen forme de financement dama koy nëbb balaa gars yi di ko jéem a sàcc mais mais zone zone yi moom dina sonal gars ci commune de Yeumbeul. def na ko. daaw daawaati jeeg laata sax muy nekk si biir nguur gi di am nombal tànk moom daal li ko itteel mooy mooy yëmbal sud gox bi jëm sa kanam jàppale population bi jóge leen Omar Sow population bi ñoo ko nommé comme modèle si taxawaayam ndaxte lii firnde na ko. alors wax dëgg yàlla mi ngi ñuy jàppale mi ngi def lu baax wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal wax dëgg fa yàlla mi ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax kon yàlla na ko yàlla jàppale ci barke yonent bi kontaan nañ ci yàlla waaw mi ngi def social yi mi macha allah kontaan nañ ci moom yàlla na ko yàlla jàppale li muy yóotu yàlla na na ko yomb